بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بقي لي أبلير اللغو بايكو تي كر أسكي في تي طوبا جمتي مورم كور ينغ خمني فرات الله جو سنبورم فرات الله تي خيدوي تي لامن يورنت بي صلى الله عليه وآله وسلم te dëgmal waxtoom ñuy fàttali mbokk yépp ne génne muurum koor farata la ci bépp jullit boo xam ne mën na ko te mooy koo xam ne bisub ayit bi am nga loo dunde mu des dara yow yaag sa njaboot am ngeen lu ngeen dunde mu des dara lam des muurum koor war na ca nit ki it da koy génneel boppam ak képp koo xam ne moo ko war a dundal waaye soxnaam ay doom yu góor ba ba ñuy baaleex mën a liggéey ay doomu jigéen ba ba ñuy dem kër ku ñu ñëpp moo leen war a génneel murum koor waxtu wiñ koy génne it mooy bu nee weer yi feeñ na guddi googu nga xam ne moo jiitu ci weeru korite ci guddi googu buñ xëyee donte it boroom xam-xam dagal nañ la génne ko lu jiitu ñaari fan ngir joxe ko bu fekkee dañ koy dajale ngir mën koo seddale ay fakhir lañ ko jox nak ak miskin ku yor dara ak ko xamne yor na way lam yor doyu ko ci ay julit waaye nak ken du ko jox ko dul julit lolu ñu koy fatali mbokk yi ni mi tollu it nak ab saa ci sa'u yonente bi sallallahu alayhi wasallam saa nag mooy ñeenti muddu ci muddu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam lolu nak ñu koy genn it ci li not ci dundub dekk bi nga nek fi ci senegal nak li kër asaka yi alhay sharia bi mi nga xam ne mooy toppatoo mbirum xam-xam ci kër asaka yi lim jàpp ne moom la moo di ne ñaari eh, saax mi ngi tollook ci ceeb bi gën a not fii ci dëkk bi muy siyaam ñaari kilo ak genn wàll liibar muy eh, deux mille eh, deux cent cinquante grammes ñaari kilo ak genn wàll liibar loolu mooy lii bopp bu nit ku ne war a génneel boppam génneel ko ñim war a génneel askan ñëpp ci njabootam li gën nag mooy génne ko ñam ndax mooy cosaan kon jënd wut ceeb génne ko mu gën waaye dagan na nag génne ko xaalis boobaa nag li liñ ko xayma ren jii mooy bopp bu ne ñaari téeméer lay doon kon li gën mooy nit ki am ceeb génne loolu ñu wax ñaari kilo genn waa libar mu génneel ko bopp bu ne ci ceebu siyaam bi nga xam ne moo not ci li waa réew mi dunde Man nako genn yit ci xaalis bop bu ne mu gennel ko ñaar téeméer ñu jox ko ab faqir wala miskin li dal la kër asak don fat fàttali mbokk yëpp ci ndigalul kilifa yi di ñaanal ñepp jamm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala nongol ñu suñu koor nyu ñu suñu naafila ñi def ci ak jaamu yalla yépp yiñ ci def ci wéru barkel wi te téwé ko ay déw ni bari wa sallallahu taala wa sallama ala muhammadin wa alihi ajma'in